さあ今日も、えー、やっておりますあのスカイプのウォロフ語会話なんですけれども今日の話題は「ハス」「ハス」について「ハス」聞いたことありますでしょうか「ハスは」えー、例えば欠点とか難点とかという意味ですが「ハス」えー 私セネガルにあのファティマートの袋を注文したんですがあのこちらから提出したロゴのデータとは全然違う勝手に書体を変えられて印刷が仕上がってきまして、えー、まあ、それは日本ではありえないことなんですがそういう仕事の仕方まあセネガルってそういうところだよねっていうことを話題に dama commandé ay mbuus yoo xam ne li ma bind sama boutique moo ci nekk waaye li ñu bind ci mbuus yi ak yi nekk sama boutique bokkul waaw te boobu dama dama dama fàtte woon dama noonu la mel dama fàtte woon ne. dama fàtte woon ne. dama fàtte woon yi ñu si bari noonu nañu mel. fàtte woon ne. dama fàtte woon ne. Sénégalais lu ci bari noonu nañu mel. lu si bari. waaw ñu si bari. ñu ci bari waaw si bari. noonu nañu mel. ñu noonu ñu si bari. noonu nañu mel. noonu lan la. noonu nañu. noonu. lañu mel. lañu mel. meel. Mhm. boobu loolu. Mhm. loolu. moo i xas Sénégal. loolu mooy xasu Sénégal. loolu mooy xas Sénégal dama fàtte woon ne Sénégal dama fàtte woon fàtteっていうのは忘れるでウォンがつくと過去ですああ忘れていた私は忘れていたダマは私ですねダマファッテオンね私は忘れていましたセネガルニュシバリ、えー、ノーノーヌラニュメルノーヌノーヌはそのようにで メルっていうのは、えーと、とそのようにノヌラニュメルそのそのダマファッティオンねセネガルニュシバリ、うん、そういう人がそういうそういうそうそのようなっていう感じですねそのような人がたくさんいるっていうことをニュそういう人たちしバリそういう人がたくさんいることを私は忘れていた Dama fatti wonne Senegal News bari non lañu mer de loolu mooyそれはロールもいいハスセネガルそれは、まあ、セネガルの、まあ、弱弱点というか欠点というかですよね。まあ、に日本はそういうことしたら お金にならないというかお金を払う必要ないですがセネガルはそれを許してしまう風潮があるので、まあ、ちょっとこう仕事が少しいい加減になってしまうっていうところありますねあとは時間を守らないとかそれは全部ハスセネガルですねセンハス彼らの欠点で日本もありますね日本の欠点例えば 私たちは靴靴にこだわらないあまりこだわる日本人が少ないセネガルはすごい綺麗なもうピカピカに磨かれている靴を皆さん履いてますねどのセネガル人もすごい靴が綺麗ですだけど日本人はそこまで気にしないですね汚い靴を履いてても気にしない古くなってる靴を履いてても気にしないでそれは日本の欠点ですねあのニュン faalewuñu eh, si Japon faalewuñu dado yi set. ñu si Japon waaw. faalewuñu faalewuñu dado yi set. yi set loolu tamit suñu xas la. waaw faalewuñu te no ma kii nii si naay ファレファレっていうのは気にするファレウニュウニュウニュっていうのはあの一人称複数ですので私たちはそれを気にしないダルイセあの綺麗な靴ダルは靴ダルダルイってイっていうのは複数になりますこれでダルイセって綺麗な靴をまあ気にしないでロールタミってそれもスニュ スニュっていうのは私たちの私のは様ですねそれが複数になるとスニュになりますでスニュハスラそれは私たちの恥あ恥というか欠点弱点弱点ですねで欠点でしょうかスニュハスラはハスセネハスセネガルマラハスセネガルニョムセネガルファレウニセネガルハスセネガルモハスセネガルモイあ soo leen waxee defal ma li ñu def lu leen neex. waaw. soo leen defal ma lii. soo leen waxee. defal ñu def lu leen neex. du def. ñu. def lu leen neex. ñu def lu. leen neex. loolu seen xas la bokk. lool seen xas la bokk. loolu seen xas la. si la bokk. la bokk. la bokk la bokk. waaw. soo leen waxee soo leen waxee defal ma lii moo mhm. siざっくり説明するとソ連和平デファルマにリーこうこういうふうに作ってくださいって言っても ñu def lu leen neexもう好き勝手に作ってしまうでロール1000ハスダボックそれそれも、まあ、彼らの欠点だよねねじゃあ今日は「ハス」という言葉について勉強しました。